لا إله إلا الله لا لا لا إله شيخ إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا إله buur Yàlla ilaaha illallah la ilaha illallah la la la ilaha Cheikh Ibra Fall la ilaha illallah la ilaha illallah la la la ilaha cey yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah fala ilaha illallah laa abu rijal laa ilaha kan jàllo danu doon wër ku baax ndeke booba

illa la la ilaha kan jàllo jàpp góor faal sol koy leer xol ba fees faal muy bange illa la la ilaha cheikh ibra la ilaha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 Cheikh Ibra Faal laa ilaaha illa laa dënnub góor faal sikara ay ndaamal góor faal ndigaloo illa laa laa ilaaha Cheikh Ibra Faal dënnub góor faal ay ndaamal góor faal ndigaloo laa ilaaha illa la la kan jàlloo ñi nu lay tëkkaleel gaañi doo nasru la illa doo seeni moroom la la la ila kan jàlloo ñi nu lay tëkkaleel gaañi doo seeni moroom la la la ila kan bu doon badar faal dani waaye benn góor du bee borom nasru laa ilaa kan jàlloo bu doon badar faal dañuy jeex baay faal duñuy beex laa laa ilaa kan jàlloo sañ ga noo jàppu jaay mbaa yeewu ñoo di maa la la la ilaa Cheikh Sérif Assane sañ nga noo jaam mbaa yeewu ñoo di ma yee ilaa Cheikh Sérif Assane sañ nga noo jaay mbaa yeewu ñoo di إلا لا لا إلا شيخ ظريف حسن لي دونين لا بدونين لي دو يدق ولاي لا لا لا إلا شيخ ظريف لا إلا لا إلا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 ay baay faal la ni doon ba bani faatoo wa mu jalleno ay baay faal baay faal baay faal la ni doon ba bani faatoo wa mu jalleno kuy baay faal sa loxo ca kaw ay baay faal la ni doon ba bani faatoo wa mu jalleno

ndax yaa nu gi ci yàlla laa ilaaha illallah illallah ci yàlla laa ilaaha illallah illallah man danaa la way ba dee ndax yaa nu ginde laa ilaaha illallah waaw sumi dal lu sukku ni raam nuy si jollani summi dal suku diraam nuy si joon ni ngir lii la yoon wi baaxoo Seex Ibra ñu wan yoon ay bàyyi faal la ni doon baba ni faatoo faatoo mu jalle noo bani faatoo mu jalle noo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tey nañ jàpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sama mbokki taalibe yi bu nu àndandoo maag yéen sant yàlla ci ala kulli halin ba noppi julli ci ki nga xam julli ci moom waye actuellement nii mooy guddi rasul alayhi salaatu wasalaam ñun ñëpp ñu wax sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bu ma siaré mbokk talib yëpp ci jotaay bi ni ñu ak ñi nekk ci jotaay bi ta sori ñu ànd ko ak ñoom ñu ngi topp nii ci live bi ci seen bi ñi nekk Europe ñi nekk Amérique ñi nekk Afrique ñu nekk Asie ñépp tey ñu ngi connecté wu ànd ak noonu feeñal seen mbégte yi tey bu ñuy seet bay topp seen bi ñu bari seen rangoñ sottiku na ndax no ngi connecté wu ak man bu dee ci réew mi fukki région yi ak bari wuñu fenn ñu nekk Thiès wala région jurbel wala région de Louga ba Dakar jëm Saalum magal gi taxna ba ku nekk ñom ñu ngi doon xaar aljuma ji kon ni sëñ Matar waxe ñun ñi fi ne bay bo ñu wat la xasu ndax am na ñu sori lool ño xamni ni sori ju jige lañu doon kon ku nekk ci nun nga farlu wat maa ngi wax ci xidmatul xadim bi di ci sama bopp di soññ képp koo xam ni taalibe daara ji nga wala ngay soppeem te jëmmi yàlla tax ngay xaritam boo seetloo bàyyi seex léegi sa lim bi bari na ñoo xam tey liñ dugg Italie Espagne ak fu sori fu sori ba France seen addu yi egsi na léegi nii ku seetaan màggal gi rek nee nga lii sama loxo na ci dugg ñu bari fop seen addu yi jaarale ko ci man mom moy yima don joxe non ñi ñek ci ren yeneen raison yi te nga xani ñew daayira yombu leen it ñëpp dabe nañ légui ndax lu bax ko gis bëgg ci bokk parce que nit ñi ñu te dañuy dox di dem ci dajé mu ne waye ku yir ba yem ci mi di nga ni fi mom man na fen mën na ci bokk lol moy li ne kon nak nañ farlu ñun wa khidmatul khadim nañ farlu ci liggey bi ta fonk bu jotate dama daan wax rek lay wax de nga tisbaari ajjuma ku mu fekk ta nga man ko war nga ñew fi julli fi juma ngir fo nek fu nek am lu la galankor ba ñew am na ko denda yow wala ku la gëna sori ku ñew kon boo mun ngànt del julli julli farata yalla yi te bu àjjuma jotee ñu dajé ndigalu suñu borom la isa nuri yal salati min yawmil jum'a yalla neena na lepp lu ngeen di def fasaw ila sikrillah ngeen wuy si ñaareel bi may nit ñi ñu def liñ bëgg defa tax defuñu ko tesbar defuñu ko takusan nañ bayyi ba ba ñepp tej atelier yéen sama mbokki taalibe yii ngeen daw ñëw diglu kàddu yàlla ci yéen ndigalu rasul alayhi salaatu wasalaam santaane xaadim rasul mu jaar ci sama gémmiñ ma wax ko ngeen dégg ko ngeen jëfe ko jariñu kon maa ngi woo ñëpp ñoo xam ñoo ko seq xidmatul xaadim bii ndax fi laay dajeeg yéen su jàllee ajumaat fi ne aw fenn waxukaay furul fii mbaa dajewukaay bu bii ndax bu jàllee du ma am jot mbaa du ngeen am jot ku bëgg di toogal sëñ bi nag na nga fexe ba fa muy génn nga di ko fa dàkk te mooy jataay bii loolu kon maa ngi ci soññ bépp bokk taal bi bu nuy seet nun ñi nga xam ni ni ko sëñ Matar waxe noonu am dañoo fab suñu loxo jaayante ngir jëm yàlla talibé bu né bi nga joxé sa loxo ni jox naa la sa bop ngir jëmi sun borom sun borom da boole sa loxo sa loxo boole ko téye yalla sant nu ni yeen aw fo bil ahd na ngeen fokk ko dere googu ndax dugg naa ci tek chen inal ahd kana mashula bu ëllëgee dana leen laaj yeen ñaar ñi jaayante won ba duggal ma ci ndax sàmm ngeen ko mbir motax ko ni sopp naa ko mu la sopp la ngir yalla su ngeen jëfé jëf ji am ngeen ndam su ngeen ko jëfut am ngeen problème ndax borom bene wa man nakasa ñi fasante woon kóllëre te sama jëmmu tax magum jëmmu toll yàlla nga duwal ko ci wa man nakasa ku njëkk fecc ci yéen fa ina mayen ko sa ala nafsi su boobaa du ma wax ak ka jàpp kóllëreem ka ko fecc lay jëflante te yàlla nee na man ku ma ba ma bala te ko yàlla bàyyi musiba dal la yàlla nu yàlla jàpp loolu mooy defi ne da wax ne mooy dëgg kere bi ñuy def ajjuma daayira dama amul woon jot ndax nangam saa yoo ko déggee ko ne mooy aw ma woon jotu yéen waaye la tey am jotu ñëw loola mooy sa jot hmm? waaw ca nga dem bu bu bu la jot ñëw daayira jote woon na la loolu jote nga bi heure yi mu la sant nga jaamu ko seet na ba mu wóor ni man nga ko mooy fajar teel bala ngaa dem fenn dara occupé wu la boo jaamul yàlla nga lang tes mm-hmm. bar bo wacce ba wara ses bo jamul yalla yàlla da ngaa làng takkusaan boo tëjee atelier ba ñibi bo jamul yalla yàlla da ngaa làng timis bo ñibé ba sa kër mais heure yi nga xamni aduna adduna da laa soxla yàlla bala ko yow ndaje xematul xadim mii defuñu ko digg becc nga xam na nga na nangam ci laane ne dañoo ba ba def heure bi ni reer tëdd kep nañ wara def bu fekke def nga farata mm-hmm. waaw bala ngaa nelawee nag demal teew ci barabu sëñ Tuubaa bi diglu ko mu wax ak yow nga xam loo fa yëlee lu doon dafa am benn waaye bu ñuy wax iblis man yàlla musal ci moom saay-saay la fonkal mu am doole la ak ka bari feem fii ne mën naa bàyyi ba farata jot mu réeral say daal te na koo xam ne dàllam bu réere képp sax du dem man na ko ponkal yi da leen daan natt ci feebar yonte yàlla ayoo feebar na ko iblis teg ngir bañ bu jaamu borom mu tëdd feebar bi dix ans ah salaatu wasalaam ci guerre la ko natt egg na ci bëgg a jaamu yàlla mu xirtal koy noonam ñu fab ay fitti tiim ko ci nombre bu néew bu mu yor trois cent personnes mu mu mu mu xirtal ci kawam mille personnes ñoo leen gànnaay ni ni ni ni ñi ànd ak yonent ku ci sëgg diru ko fit dóor leen ko fit mu daal te boo waxtu jaamu yàlla jot na alayhi salaatu wasalaam xam ni faatu ci ndigalul yàlla moo ma gënal daw ba faatu fekk ba ca sëñ Seex Mbàkke daan wax ni daw daw daw daw daw dee kum taxal làqu ci gàcca su boobaa bu dee ñëwee rey ba noppi bàyyi fa gàcca ku ku nekk li sa bëj ne ma ne fàtt na la waaye ba yoon ñaanal ko a ndax di li mu fi nekkee woon kon dee nga pare waaye gàcca nga bàyyi ginnaaw loolu la la wax mu ne daw gàcca kum taxal làqu ci dee bu la bu la dee reyee ba noppi it jëlee fa gàcce ga kenn du laxas xas parce que dee nga ci li nga war a dee nit a koo xam dee ci li nga war a dee kenn du la xas ginnaaw waaye dee ci loo wërta dee da dee ba noppi doo mbayal gàcce léeg-léeg nga dégg dee ba mu nekk rumeur bi mel noonu ci que li nekkoon ba faatu sëñ bi dadul lu kenn xam te faatu nga boole ab niiw ak bàmmeel ak xasu ginnaaw ñëpp am bàkkaar sa ginnaaw yàlla na yàlla bu sol ci loolu kon ne ci faras rek baax té ram ko koo xam ni waxtu woko ko négligé def nga lo xamul ndax bu noonu gudd na ma naaj na foog nga ne fu ne ma ngi yeen ngi ku ci sa bakkan rot bala ñu def la ni fu señ bi ne motax heure bi ngay won señ bi ginaaw dang ko tal señ sam da ñew motax waxtu bu señ sam wootee wuyu si woko dang ko tal waye boko talul foog nga mooy defe ne dëj bii ba mu xewee ci saase ngeen a mën démb téléphone yi daa daal takkar naa si sëñ Fallou di woote ngay woote sëñ Matar ñëpp di woote waaw lu tax mën noo jaare noonu rek dem te bu fa àdduna teewoon te teewunu fa mu manqué. dëgg la waaw benn noxas ko moom ndax deful li mu war a def baa joxas kilifaam ndax kilifaam deful li mu war a def moo tax kóolare gi nan ko xam. xam nga noonu noonu noonu suñu problème mooy damaa jox dama laa jox saabu àdduna li fekk àdduna tukkeegul loo fi dugal lu jàpp loola def nga loo xamul ak àllaaxira te eggagul fa nga tiri koy boo eggee looy wax ji ngi da ngay jox sëñ bi sa bopp yaa ngi koy ngëpp say loxo yaa ko ko ni ñukk ne ko jox naa la saabu ci àdduna àdduna jeexagul nga des ginnaaw eggagul àllaaxira nga des maanaam yow moom bu eggee sëñ bi layam du sori bu yàlla ne ana waa ji ma ko ci àdduna la ko bàyyee woon topp atelier ba mbaa maçon ba mbaa chauffeur ba mbaa nangam moo taxoon taluma àdduna tépp na seen diggante eggagule te yooyu yëpp pexam seytaane la alayhi salaatu mii nga xam ne ci lañ dégg ma boo déggee ñi tudde almuhaajiruun mooy ñi gàddaay ànd ak moom wal ansaar mooy ñi ko dalal bi mu gàddaay ba ëgsi di nga dégg ñaari kuréel ñoom ñu leen tudd al muhajir wal ansaar amul ku mus a jaayante mujj ku mus a dugg ci lislaam rek Medina Makka bi yonent bi dem Medina yóbbaale la parce que sa sécurité mooy nga ànd ak moom ku mus a jaayante moom ca ca ca Medina delluwaatoo sa kër foofa nga toog ngir ñu tabax ñu tabax lislaam moom la Alxuraan wax allasi tabawuhu daara wal imaana ñooña kenn du leen def ci dara ja parce que dañoo jaayante ba noppi bàyyi ginnaaw àdduna bàyyi lañ amoon jox Rasulullah seen bopp sëñ Tuubaa ñii koo fi gis nga dégg ñu ne ab seex la ba mu joxee boppam ñibbiwu man ko seet barke de moo jaay xel comme ji rek am na ci kilifay Baay Faal yi ko fa faatoo jamono si mu aminta daa wax ni moom day liggéey ba ba wàcc ci waar yi jarul dem na ko ñaari yóbbu te kilifa la waaw suñ seexal njukkoon ni lañ nekkoon yàllaa fi ne di suñ rasulaay di suñu jëwriñ sëñ Tuubaa mi jiite nu am benn waay bu ñuy wax faatu fu mu la mën a fekk ci kanam ñi dana la jël préparé balaa boobu loo ko jënde jëru ko te wax naa barki bu ci bi bi su sëñ Xalifa Gay bii dama leen wax ne sëñ bi lu mu la jaral jar na ko dëgg la lu mu seer seer seer te sëñ bi jaral na ko jar na te bu bis jotee nga xam ne jar na ko waaye lu la sëñ bi jaralul jaru ko ak lu loola tuuti tuuti te sëñ bi jarul ko sëñ bi jaru ko ba may ñëw ci bisu dama leen ni man ñëwuma ngénte pas-pasam moo ma andi ndaa mm-hmm. na ci màggalu sëñ Tuubaa noo xam ni bi muy bi ñuy déparé fii soxla su nekk hôpital di matu la fi ba moo am doom ñu war koo ngénte bis bi del see mu boole la mu war a fay hôpital baag la war a ngénti lépp jébal ko sëñ Tuubaa sëñ Xaadim bi ngi moo doon jëwriñ ban ma fekkee fan nekk di wax ni noon ngi tuub ndax tuuti saytaane jàpp nu ndax bu nu fa woon xaalis bi dem yóbbu ko hôpital mbaa du ngénte ko màggal suñu musiba am saam nopp bu ñu jógee màggal li ko sëñ Tuubaa jaral dinaa ko woon bu négligé woon màggal ci ma négligé ko bu négligé woon bi sëñ Tuubaa ma négligé ko lu ma woo ko wuy ci dama leen ne dul màggal sëñ Tuubaa gi ne ñëpp xam ne damaa ñor bisu sëñ Aliou kat ne ñëpp xam ne damaa ñor soo jàllee mawlid na bii leneen lu waaye am dina man kenn mës na dégg ma woote ci yéen ngi nii sëñ bi day céetal tey man damay xëy xëy dem yenu sama biir nekk mës bàyyi sax mës maa waxal ngénte doo ko dégg banaa koog yéen man bisi sëñ Tuubaa rek laay woote bisi yàlla suñu borom li des moom mënoon naa ko saa wut saam xar ren ko saa kër maa saa kër tudd doom ji lekk kooku mën naa ko banaa ko yéen lu ma leen woo rek ci yàlla la la la jëm hmm? màggalu sëñ Tuubaa dañ daal ngay dégg sëñ bi génn aca màggalu sëñ Aliou Kanam sëñ bi génn aca mawlid nabi sëñ bi génn aca bu leen jàllee lenn lu ma leen di woon ne kaay leen def ko saa kër amul waaye loolu ngeen ma fekk maa ngi yéen ci yem de waaye su jàllee lu ngeen woote fekk naa leen ci yem mën na tey man ku ma ñëw sa ngénte ma dàq ñu ngéntal ka ma ñëw. ku ma taxaw sa dëj naa def na say bokk mënu barki démb démb la ma def ci kër Fall Ndoye nan ko def xam naa li muy jariñ ab néew. te te te bàyyi day jàlle. du ma jaali. tàyyi naa ko jàlle lay def moo tax ba tey barab bi rek nooy fexe ba ki ki faatu moom ci saase na yëg ni ñëw na wax ak sa borom wax ju wér ju wax na su ko waxee du lijjanti waa ji lu mu doon loolu nag yow yaa koy jëf jot amut kon loo jënd sëñ bi rek bu la ko jaralee baax na bu delee ko jar di nga xam ne sëñ bi jar na ko waaye bu ko jëru di nga xam ne sëñ bi jëru ko de yow miy waxaale ka jënd nag di seetal facture bi <coughs> seetal facture bi lan la foofu la mbir maa ngi soññi saabu leen soññi yii lu ma ñor la kum neex na ko farataal kum kum neexut woyofal ko <coughs> al ma nad'u kullu unaasin bi imaamihim xam naan daal lu la gàllankoor lu ne ba mënoo ñëw loola moom moom seytaane wala yeew buum la goo xam ne bala ma laa baax yow yaa yaay fecc ko war ko ginnaaw waaye du la ba mukk bakken du jàpp nit ba yaa koy bax àdduna du jàpp nit ba ko yaa koy bax soxla bi yii ci biir du jàpp nit ba ko yaa koy ban dëgg yàlla sa borom xam ne kii mënul ma ko dara mu bala sëñ Tuubaa la ba saay raw ma doo ko dégg ci kaw suuf moom kay saay morom laa doon liggéeyal ba ñu ànd ak yàlla raw ma ngay dégg waaye liggéeyal yàlla say morom raw la du am yàlla rek a jar a liggéeyee ko xam iblis ak seytaan daa bari doole te kat mën na ci yow pexe ba affaire bi raw la bu noppi mu doog laa yee nag nga naan nañ ma jéggal de bu ma ko yëgoon daal xam moo xamoon nii lay demee fekk c'est affaire bi passé na xam ngeen ni bis sëñ Tuubaa bii nu weesu mel na nu musta mel toll na nu musta toll egg na fu musta egg li ndajee fii képp mos nu koo def waa léegi bu kenn noppaloo léegi léegi koo koy def ah loo xam maanaam sax ñàkk ñëw boo ko yëg waxul duñ yëg ni ñëwoo ndax ni mbooloo mi toll yàlla xam na ko yow kay yaa naan sëñ bi daal bis ba li taxoon ñëw mu ñu sëñ bi nga xam ne ñëwoo ah parce que yëf yi da da da da ëpp dayoo luy dox la jëm ci suñu borom da ci yëpp ànd dama laa wax démb ni la rasul alayhi salaatu wasalaam ci oto bi ñoo ànd bi mu fii ne islaam li muy jar mooy paaka ci put paaka ci put kenn musta ànd ak moom dem xare bu dee fukk fukk del séedoo amut fokk am ñu des ginnaaw ñu rob leen sëñ Tuubaa wax na ko tana soxol mawtamaan te teewul saabay dinaan xëccoo ni bu xare waree am rasulaay taxaw benn waaye takk ndiggam ni fay ni cëpp ne yonente may ma jëkk faatu ñu koy xëccoo maay jëkka dem maay jëkka dem maay jëkka dem te jaas yi leen di xaar ko jaral waaw kon yow bu demee ba maanaam boisson ak pomme ak mis wi ci barab te bu loo ko fekkee bu jaas yi génnoon nooy def nooy def maagal tubaab bu ñu xasee yëg looloo fa ne ku ko mënta assister bu génne woon jaas yi yu am ñaari wet ponkam gàddu ko jëm si ceew léegi nga ne banaa loolu moo fi ne murit day gëm ba noppi gëm gëm ba noppi gëm la sëñ Tuubaa seeral la ni seera mooy mel na xel bi mu teg bët tegatul bët leneen foofu la affaire bi ne maa ngi soññ sama bopp deen soññ te man diglewuma loo xam ni di ngeen ne ne ca kanam ma ne ci gannaaw de mhm. fii bi gaa yi joxe 1000 francs man cinquante deux mille laay joxe ajju ma junne at laay joxe te bokk ma ci benn daayiri bii de daayiri yi fi yëngu yëpp maa ngi te bu ci nekk noonu laa koy def parce que dama bëgg a jàlle jàlle waale moo tax duma ma saa bopp mbooloo laay liggéeyal ajju ma junne téeméeri nit ak ñaar fukk laay ko dese waale ajju ma junne téeméeri nit ak ñaar fukk laay joxe waale te daa koo xeeb man damaa jàpp sax damaa yaafuus man loolu xam naa ko damaa war a def lu ko kon nag yéen gëstu leen sëñ bi rek ba li ngay def li sëñ bi def loolu ëpp lan la seetal ba yaa sëñ bi ko responsabilité bu dee dépense bu kër képp kenn ëpp ma ko ci kenn du ma lay dépense moo ma téye bu dee njaboot gu wër képp ak i yu génn nit ak ñooy faj kenn ëpp lay woo ko ci yéen kon kenn du ma lay saa jabar daa feer mbaa Mm-hmm. waaye waaye loolu du dox sama diggante sëñ Tuubaa noonu lay def fii ne ni may waajale déwén laay waajale ajjuma ji ñëw nee naa leen fii du fi teew mukk ñu fax naan fu affaire bi tool mm-hmm. waaye yàlla rek a ànd àndal fii ne fexe na bañ ñoo xam ne mosuñu maa teg ba ci saa yéen te bala may génn fii daan ñoom ñëpp daan participer ma ñëw andi leen ko mm-hmm. dama ko gëm moo tax yàlla gëm le ma ko wax ay gaa yi ñu wax ko gëm mais boo ko gëmul doo dem xam nga suñu digënté sëñ plan lu fi ne fi ni fi sawara wu tak jërëx rëx rëx nga xal lo ci tak mu ñoro waye ben ah man nako fay sëñ bi neena nga ne ah fii mom de paré nga taal ba fay na waaw dama leen waxon fi sëñ Aliou kan dafa am ñetti yu mu sa togal fi ci Ndakaaru man na ko wax kenn ki sëñ Cheikh gay li ngeen mi def boo demee li nga xam ne ku bari doole nga doon mhm. am na ku ñuy wax Baye Mori Loom am ko wax sëñ Mor Faasa ak kenn ci njaboot ci ñooñu dañuy jàmbaar yi moo tax ma tudd leen bis sëñ bi génne benn sirru ci latif jox ko ko ne ko nañ ko sikkar bi nga ko génnee bariwul de diw demal nga toog fee def di diw demal nga toog fee def diw demal teg fii kenn ni ah xanaa ñu weddal la rek sëñ bi sëñ <laughs> daa wiccax bopp ba jóg fi mu sóoroon toog suuf di ko xaw ma kan waaye doo tàkk waaw demal def li ngeen jariñu nga ne ma mën ngeen koy defal kenn mus ko gis taalibe bu xasee dégg ndigal na jàpp ni ay àddunaam alaaxiram ci lii lay fajoo da ngay boole xawfu من من توبة قدمت خوف رجا ما هو إكسار حسن دواما بالخناة نقول سنت الله فطلو ديال توب يو طالب بي يابني دفنا بين انفاكسيون بو خامني تاي سي غوديغي سما فما نتا ياكو مبا تاي سوبغي سنت الله بو خير نكاتي لول من توبة قدمت تك خوف كوي واخا سي كريك كيري بو boo seqee moom loo war a seqee moom ca la sama yàqu ci kër sëñ bi war bu ko jàppee nag doomu sëñ bi képp de jotee moom yàqu ci kër gi soxna sëñ bi jotee moom yàqu ci kër gi taalibi sëñ bi laa wax nga war ko yàqu ci kër gi taalibi sëñ bi mooy sëñ bi doomu sëñ bi mooy sëñ bi soxna sëñ bi mooy sëñ bi fasu sëñ mooy sëñ bi oto sëñ bi mooy sëñ bi daalu sëñ bi mooy sëñ bi mbiir bi ci kër sëñ bi sax sëñ bee gisoo bis bi nag sëñ bi liggéey lu kër te du ca dugg kër gi nga koy liggéeyal kër sëñ bi bi ma xasee doon kër sëñ bi rek man mën nga cay kon loo gis kër bi jàppal ni lii ci la saag defaru ne ma ma teddadil loola jàppale ci la saag yàqule ne kon boo amee koo xam ne saa yoo xëyee ne ca ñooña di leen yàqal yow yaay yaa yàqule su fekkee saa yoo xëyee defar ñooñu defal ne yaay fekk la yaay defaru damaa toog ci màggal gi wax naa ko sëñ Massar mi gis sama ñaari Baye Fall yi muudu mi ak Baye Fall sëñ bi li ko commencé mbedd ma ca tëli ba ba ca mbedd ma ca ginnaaw man maa ngi leen di gis gisuñu ma dama ne xool ba yàgg moo ko ma ni ko gars kenn mën leen a fee dem parce que dañ koo gëm moo fi ne yow jàppal ni ginnaaw sëñ baa ngi ci biir kër gi rek na fi ku fi ko fi na war naan ndox mooy ko ndox sëñ bi nga ko may ku fi ku fi ay dàllam réer nga seetal kooku defaloo ko sëñ bi nga ko defal parce que lu ci xës lijjanti ko sëñ bi yëg ko xoolal xoolal acte bi bi ndaw si def keroog man la ko def parce que daaw bi kooku réer lee maag sëñ bi ñoo ko fay parce que te booba gan la mu ñëw ci màggal gi xaay sëb réer ba mu waree sëñ xaar yi moo ñëw ba ca ni ma diwlee doon kii da yow nangam daari dama ko ne loolu bu loolu du wax nañ ko lijjanti léegi kon bu kenn rot ne kenn ko kooku man la ko defal pourtant am na koo xam bu moom de ab fàq man da ko da ko yóbbu yàqule faaw nag orma suñ diggante fonkante suñ diggante te bu te bu sëñ bi ne acca rek nel acca kon maa ngi leen soññi loolu gis nga négligé da nga koy def ci lu la amalul njariñ bàyyi laat nee na nit fi yaakaaram ne buy foo koy teggi nit fi yaakaaram ne buy foo koy teggi waaw kay Kalau nga loolu ku ko regi noonu amu ko waaw waaye waaye ñii xam nañ ci dara dem bi mu toogee sama sama tibi. bii yitte giro yi day kok. ko dama ko malam demal marché seet lu ko war a defal yëpp ma fay ko waaw dem bu ci bëccëg maa ko jëlal ay lal jëlal ko ay darab jëlal ko ay bagage ni ko dama sanc Touba la lépp yàlla fay ko ko fii lebal yàlla ku ko def yàlla fay dama ne lu la sëñ bi jaral jar na ko lu mu la jarul jëru ko te te te te ak am doole saa yu sëñ bi ne diw jàmbaar la ca saa say saytaane dem ca nopp ba ko saa yi dee ngaa noppul woon <laughs> du nungu mu egg moo tax benn moment sax sonn ci kër sëñ bi dansee la de boo naree dem saytaan ko ci ba fokk moo nii la lu tax nga découragé fokk lu jar ay xel dafa mel ni mag ci mag ñi dafay liggéeyal ku tedd ba mu ba mu war a toll ci gërëm ko am ñu ma woo leen bu subaa ni ngeen ñëw ko seere ma ndax diw mi sant naa ko da ko war a ta ñaanal ko fa waajo dafa ànd ci kër gi ba bët set du fa yatt di jot da ko xaritam wax ko ni ko daal daa am foofu sama papa ñu mu bëgg nga gunge ma ah bi te ari ma ko dañuy dem rek balaa señ bi jóg nga ñëw señ bi jóg araba jóg mu ñëw ne ñu ko daa génn seytaane koy def du ko nangu nit naa li Seex Abdu Xaadir ca tur yàlla am wax daane ko fii sëriñam di ko tarbiya ci 787 boobu mu saxoo ko liggéey liggéey liggéey liggéey bi taxaw ndekete mi ngi dox da ko yëgut dem ba yàgg mu ni daal man nag sama tur yu yàgg naa ci lool yu sëñ bi jox te affaire bi doxagul li ma a mooy bu ci liggéeyee tey jii ba ba set affaire bi doxut naa dem sensé ko yut beneen tur nawet la de mu taal làmp poto foram comme gunóor daa bëgg lumière mu do dugg ci néeg bi song lamp bi gunóor bi bu yégué ci lamp bi ñat ñati bay jëm ko ba laal wër bi tagor tagor bi lak ko mu sa bu xar yi nga jël kurusam di wërt basmala lay dóor mu jakkalu gunóor bi rek timis la fatu ba fajar bu gunóor bi ne ñat ñett ñett ni butti ci suuf ñett ñett ñett ni butti ci suuf ñett ñett ñett ni butti ci suuf mu ne ko xool beeg mu ne gunóor bii de xam naa man lay waxal làmp su gàtt si mu bëgg a yéeg démb ci timis ba fajar jot te su daanoo du découragé day yéegaat man daje gu ma daj ba pare bëgg cee génn <laughs> daane fab gunóor ba def ko muy jëw ni nam <laughs> continué kursam gunóor bi bàyyiwut gunóor bi bàyyiwut ba mu yax saatu xari bi yëg ca kaw ca njoor baxtal Abu Xari daal di def salaatum ëf li ci ëf laal ci loo xam dem tëdd noppalu fajar teel fekk takkoon nab saak ba génn fi mu waroon nekk ba nekk feneen bi mu nee naa dellu faa jóge woon ndax gunóor bii daal li ko indi fii pas-pas la bi mu nee bay tolloog benn benn benn kër ci àll bi fekk ñuy gas benn foos benn waaye ngi ci biir kër gi kenn ki ci mbedd mi bu bu tibbee jëllu ko ci kii kii bi mu sotti defaat ka ca pax ma di gas dem ba yàgg mu sonn wax waaj waa sa waay mu ne kon sonn naa de waaw sëñ bi tey ngaa continuer mun ko waaye boo tey maa ngi gas saa yu tey néewoo googu doy na ci mbett mi ni waaju fi ngay bëgg a bàyyee foofu la baaxee kële waroon caal buraax di masamaaw borom tuuba waroon ci gaal ya noonu di di ko laaw kële ibn Anam abo Jalim badar mhm. borom tuba futu borom nonam te bojul gobar walay kële fi wàcce alxuraan bil way borom tuba ko bindul wasal kaamili dëgg kere defar quraysh nak adnan borom tuba defar bidani ak sodani mhm. kële jaare makka di far ay bakkan borom tuuba jaar ay at jaare bakkan bilay kooka di xayrul anbiyaay walaay kooka di jooja waay yi gaay wuutu yooya gaay mi mbira wuutu mooma waay mi mbira day ba weesu بارك الله كلي دفر قريش ادنان قريش بن فاميلا ادنان بن فاميلا كي دفر بيدان بيدان او خيت لا خمغا خيت فامي دو بن واو كي بن فاميلا دفر قريش ak adnan mom ci quraysh la bok bu fexé ba quraysh gën xéet bu dul mom ak banni adnan muy xéet ko mamam sëñ Tuubaa moom waxul kër maam bii daan la wax ñi weex ñi ak sodan ak ñu ñu ñi fo dem fekk fa ko bamba defar bu gën la aw ku bëgg ni moy moromum Baye musa ne na def limu def rek ci ji boromam mu jeex nan ko bëgg nan ko sopp nan ko jàpp mom mo waxal bopam ni jamono du eh, du ma jëf di ma jëf ba ci fi dem ba jamono rombu rawante xëccoo jiitu may diglu kalbu nafimu xaj buy baw ko xal bo boo wax ci mom da ngay laqatu ci ginaaw ginaaw ginaaw ginaaw ekra ba noppi ci ni mi ah ku bëgg wax ci seigne touba ñëw man ñu sa buntu kër bi rek bi wa yow mi nga xam ne da ngaa contre Sëñ Tuubaa kaay ci buntu kër bi eh. man duñu du ma jot a génn bàyyi dem ba mi lay mbëkk nga fa non yomb na waaye dem fu kenn nekkul nga nga taal sa téléphone tëj sa biir néeg korosé ko nag ba noppi waaw caabi law bi ko nga xam ne yow xamul foo toll nga naan sëñ bi nii mu def du ni loolu loolu yomb na xuloo ci ginnaaw miir yow kay jàkkaarloo rek loolu moo fi ne amul morom mbàkke yàlla nañu yalla dimbali ci barke waye nu fonku gamu gi sëñ xaadim mu ngi ni lay joxale ci 100000 francs man joxe na nak bo mo sama def ko ay nak Amadou mi neena na joxe na ko moo tam cinquante mi duwal ku nek li nga man nak ci japp bisu rasulullah la tam ko weddi ni ndeysaan gaa ñoo ñoo xam suñu mam ju bax الحاج مالك سي با بند بن بيت ما دي كوكاي كونتيستي اس اراد له نصحتنا ابانا من نوره نور نبي العالمين مولا نينا بي يالا بيمي بيغي ساك نون تبول جوبل سي نون باسكو نون مانون دانو ساكال كو ملي رسول الله يالا ساكو سي ليرام موم defar rasulaay ba mel ni mel mu sàkk ci leeram moom yonent bi branché ci ñun suñ jëmm yi ak jant beeg weer bi xoolal sàkkaat ci leeru jant bi branché war ko fi ne ni ku maanaam loo loo weer mu woon la ak ni jant bi soree te rasulaay gën koo foor mille trois cent quarante millions kilomètres lañu soree te bu te bu benn yaay faal fóotee léegi temps une heure de temps jant bi wowal ko te jógul fa ne te Rasulaay ëpp ko doole ndax moo ko suuf jant bi man lii Rasulaay mënul le yow xamoo li xew ah xamoo ko ñi yàlla may kasu ñu dem ba teg ko bët moom ku tedd ki sallallahu alayhi wa dembu la len di wax wali yu tedd wu réy gu ma gis barki dembu ci asmani juroom ñaar la ko fekk dembu démb rek ci yow maa koy wax sama waxtu ni ma damaa yimu ci ñu koy tuddé señ señ señ cheikh señ cheikh fatta ko cuub mus musuma ko dégg maa jàng genn ñaan rek tëdd tañ tañ bañ yób yóbbu boppam la te kooko di taalib sëñ Tuubaa sëñ di taalib rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ci kenn xeeb li nga man waxuma nak bu kenn def lo mun koku man nak def ko waye lu way man def ngir rasulullah sëñ Tuubaa wax na ko ci téré bi sëñ bi doon jangalé léegi ko joxe ben tangal ci guddeem mu ëlëgé mu romb la tàngal kaasu café wala meew ci guddeem bo ëllëgee mu romb la ku fexe ba joxe benn doogu ndawal wala benn tib ci guddeem boo liggéey mu ràmmal yow mi ko gëmul yaa xam ñun gëm nañ ni loolu am na dafa benn buur waxoon naa ko fii bu kàccoor lu ko neex la daan def benn président dëkk bi daal ku fi yor soxna nu mu mën a mel bu maanaam bu ko yittewoo du la dangay ñëw ci ci ci ci conseil des ministres ba noppi mun na diw ba nga xool ko mun na sa soxna mooy faransi tey bala ngaa ñibbi nag yónni motaar bi mu jëli ko ndax boo ko defee mu ray la moo yor dëkk bi moo yor dëkk bi bawul dara waaye li muy kàccoor kàccoor yàlla xeertaloon na ko bu gudd yonent bi ñëwee mu màggal ko bu ñëwee maanaam ñu ni suba la gàmm day mooy feet dëkk bi kenn du liggéey ba pare invité leen berne ñëpp suba gàmm ba ci ëllëg sa yi na mu dellu ca la new waaw benn waay yaa ci réception bi femme nga den doon sa des la guddi gàmm moom du la laal nga ne ko waaw kooku def sama femme mu ne ni ma ñu moom yàlla yërëm na ko tey yoon doole yi rasulullah laa lay wax gis nga moom mi màggal gul yonent dafa yàgg ci pouvoir bi te ay roi lan ay roi fekk déewu kenn du la doon am ku topp ci moom dem na ba war a am soixante quelques années waji tok ci nguur gi rek juroom fukki at mu tok tok tok ba yag bu ne man man suma fi faatoo te ñëm ba ci nguur gi du baax ci topp ci mo man nan pexé la mëna am bay ba bur bi woote ben cérémonie mu rocc ko ñëw ci gardien bi ki nga xamni mo mo yoxé ci bur bi neexal jox ko lu dul ne ko ma top ci sa xam nga ko mu ne ko waaw mu ne ko jappal ci ab sec la ko jox lii nag mu ne ko salle rek laa bëgg nga dugal ko mu fopp segam denc ne ko kon da ngay bàyyi ba waxtu sàngam ban nekk ci kii bi nga ñëw waxtu jot sa waay ñëw mu bi salle fi nga xam ni mooy mooy chambre à buur bi mu weesu ko dem te salle ba teg ko moom mooy ubbil buur mooy dugal buur mooy lekkal buur mooy naanal buur sa waay nekk ci cérémonie ba nekk ca feet ga ba une heure de matin deux heures de ñu ñibbisi tagor japp buur président mu ñew garde yi andi ko ci kërëm ba mu dugg ci neegam ñu delloo bunti mu tëju war wara sang sangu naka la dugg ci sabra kusim gaay yi bunti mu daal summi ko bani ba ne jubal ci wala wi for sangu naka la dugg ci biir rek bo bunti bi say tuñam loog moom gaaw féetaf ginnaaw ne kar ci bunti bi ko ki saway maam ko tay nga dem da yàgg ci nguur gi te dama ci war a mos te mun ma woon def lu dul nii nit das benn paakab saama ba am ñaari wet looy def nii mu ne ko da ngay daaxare ngay fanaane tey damaa war a toog te moom buy dee muy toog bi mu ne nii paaka bi rek fi buur bi taxaw jàkkaarloog moom mu taxaw jàkkaarloog moom moo féete ci bunt bi genn fett génne ci biir ba ne capp ci xolu waaj li mu yéene woon def waa ji ba safu ci miir bi deret ji xel li président ni gees ni xaatif wax ak moom ne ko yaa màggal sama soppe ma musal la ci sab noonu yow yaa màggal sama soppi biig ma musal la sab noonu tey xoolal loolu xamul ko ndi fitig من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برمنا الله دين